su fekkee abonné go cliquer bind bu xonq biñ bind s'abonner nii soo cliquer ba pare gis nga am na cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti cloche mooy génn nga cliquer ci kaw fiñ bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activé nga notification yi lan moo si des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñuy def lillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim barkeb cheikh ibrahima fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di njëkkanteeg waxtu wi lool ndax xaw naa guddi waaye di jiital ci nuyu beeg siyaar bi sëriñ Falilu Mbakke moom sëriñ Ibrahima Khalil moom Cheikh Mouhamadunil Fadal ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp di di ci teg sëriñ bu Bousso moom mi nga xamante ni bii mooy moom sëriñ Abdul Karim al imam Touba Bogo waaye di nuyu bu baax a baax tamit sëriñ Modou Ndiaye chef de village di am mbégte kontaan lool di wax nag ci turu fédération daayiratu Miftahou Saada dongay tërbiye kër Cheikh Mouhamadoul Fadal waaye di waxi tamit ci turu daayiratu soppey seex Mouhamadoul Fadal Mbacké bi nekk fii ci Touba Bogo ngir waxtu wee gudd guddi lool fi mu nii te temps bi gàtt moo tax rek ngir ñu bëgg a profité bañ a gën a yàggal kilifa yi ci toogaay bi ndax toogaay bi métti na lool moo tax rek ngir ñu bëgg a profité gàttal lool waaye amoon nañu yéene nuyoo bi gën a yaatu gën a matale waaye comme ni ma ko waxee rek buñ tuddee sëñ fàllu rek ak sëñ bu so ak sëriñ Modou Ndiaye mel na ne kon ñi ñu war a tudd ñëpp tudd nañ leen kon ni ma ko waxee nag ci turu ñaari mbooloo yi nga xamante ne bii ñoo àndandoo boole seen bopp ngir fas yéene liggéeyal sëriñ bi waaye jaarle ko ci turu baatub daayira àndandoo ngir waajal bis bu mag bi di fukki fan ñett ci rekki gàmmu kon nag ci ñooñu ci lañ bëgg a wax ci seen kàddu ndax jotaay bi am na solo lool ñaar ñoo xamante ni bii ñoo bokk luñ bëgg kon mel na ni seenub ànd warut a jafe te it ñun ñëpp ñoo bokk luñ bëgg li nu bëgg leen rek la muy liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi nag kenn ku ne mën nga koo defee fu ne waaye li ñuy wax daayira da cee gën a gaaw tey it da cee gën a am barke lool kon nag ndokk bi ñu suñ borom dimbalee ñu am xelum ànd ngir fasoo liggéeyal sëriñ bi ndax bis moom benn rek lay doon fukki fan ak ñett lay doon ci rek gaaw mënta doonaat beneen bis fenen fu way man di defet fudut fii tamit melna ne fii rek la la xewe woon fii la amé won kon nak ndok bi ne sun borom dimbalé bañ am xel mom ba and ngir fasiyene yéene liggéeyal légui nak kon ci fi nga xamanteni bi fi la wara jëlé man moy turu délégation yi ngir teunk ko ci teunk bu gat rek ñoo ngi tambalé ci mbooleen sunu kilifa yu bax yi nga xamanteni bi ñoo fi tok tañ tuddé len bis bi bis bi nak waxtu yi sa buñ fi togué tay sunu xel war naa deltu ginnaaw bu baax a baax a baax a baax ci sun ñaari kilifa yu baax yooyu nga xamante ne bii mën naa ne diggante daaw ak ren wax dëgg yàlla ñu daan gunge ci liggéey bi daan ànd ak ñun ci liggéey bi muy ku demee ne Cheikh Mamour moom Serigne Falilou waaye Cheikh Ibrahima Khalil mii ak mboole mbokki donga yi nga xam ne ñoom lañ daan àndal liggéey bi waaye sunu wayjur yi nga xamante ni bii ñoom lañ daan àndal liggéey bi wax dëgg yàlla saa bu buñ toogee nii tey suñ xel war naa arrière bu baax a baax a baax xalaataat bu baax euh, jakkalaat suñuy toogaay waaye jëm a gën a dalal suñu xel ci benn côté waaye tamit ngir gën a jox yitte jotaay bi ngir lan ñi nga xamante ne bii ñoom lañ daan àndal liggéey bi te tey gisuñ leen loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax baax rawat na nag ku demee ne Seex Ibrahima Xalil foofu moom jar naa taxaw tuuti Miftaahu Saada gii tey nga xam ne ci seen kàddu laay wax moom mooy ki nga xamante ni moo joxe woon tur te loolu ñëpp seere nañ ko moo doonoon jëwriñ ji ànd ak ñun ci liggéey bi kon nag bis bu yàlla dogalee tey ñu ñëw fii di ko def tey euh, mu wóor nañu tey bu ñu xoolee duñ ko gis waaye it sant yàlla ndax euh, alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Fallou euh, yàlla na ko suñu boroom gën a dëgëral te yàggal ko fi moo ki rakkam ñoom ñëpp dal na suñ dal na xel lool dañ koy gën a ñaanal rek mboolem li nga xamante ni moom la naaloon suñu diggan digganteem ak waajuram wa waye mboolem way juróom yi nga xam ñom andal lañ daan andal di liggéey suñu borom dimbali ñu bañ mottali ko ànd koog ñoom ci barke Cheikh Rafal kon ñoo ngi tuub tuub bu baax baax tay jégalu ci kàddu yu gudd yooyu buñ tédé délégation yi nga xamante ne bii ñoo fi ñu tambalé ko ci euh, délégation yi nga xam ñom ñoom ñoo moome bis bi muy Cheikh mamadou Fadal ak ñi nga xam ñom la andal kon dañ ci tambalé ci ki ci jitu muy Serigne fallilu Mbacké mom Serigne Basirou mom Cheikh nil Fadal ñëwaat ci sëriñ Fallilou Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah moom sëriñ Fallilou ñëw ci sëriñ Fallilou Mbacke moom mi nga xamante ni nii moo moomi bés bi di borom jotaay bi muy sëriñ Fallou moom sëriñ Khalil ñëwit ci ci fa sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir moom jiili Fallilou ñëw ci sëriñ Moustapha moom sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Fallilou ñëw ci sëriñ Abdoul di rakk ci sëriñ Fallou moom sëriñ Khalil moom sëriñ Fallilou

ak sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ moom Baye Cheikh Ibrahima Mbacke moom Serigne Fallilou ak sëriñ basiiru jëgal ak mboolem taalibe yi kër Cheikh Ibrahima Khalil Mbacke gépp ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo ànd ak sëriñ bi ngir ñëw jëmmal si bi xam ne seenu bis la. kon lii mooy délégation bi nga xam ne moom la Serigne Fallou Mbacke àndal te ñu jóge ñëw àndandoo ñun ci bis bi ngir xam ne seenu bis la kon nag ñoom ngi leen ciy sant bu baax te di leen ci gërëm. di leen masaw ci coono yi te xam ne rek lépp rek ngir euh, koo xamante ni bi ñoo ko bokkoon te sun borom dogal ci coobareem euh, loo xamante ne bi mënuñu ci dara kon nag ñoo ngi leen ci sant bu baax te di leen ci gërëm di leen ñaanal sun borom gën leen fee yàggal gën leen a dëgëral ba mboolem naal yi nga xam ne seen wayjur yi naaloon na ko ngeen mottali ko teñ ànd koog yéen ci baax Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra su fekkee abonné go cliquer bind bu xonq biñ bind soo cliquer ba pare gis nga am na cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti cloche mooy génn nga cliquer ci kaw fi ñu bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activer nga notification yi lan moo si des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñuy def